loolu du dara lu bëgg réew mi rek moo tax mu daal di koy def moom Pape Diop nag daal di xam ne rek ne ba mu jëlee dogal bi tegul ñaari waxtu kii di président Macky Sall daal di koy woo daal di nga xam rek ne ko yow mii da ngaa sauver Sénégal moom Macky Sall nag daal di nga xamalaat ne ko su may jigee Mali dinañ waxtaan. moom Pape Diop nag nee na kii di Macky Sall daal di ko xam rek ne ko lu nga def rafetlu naa ko. mu mel ne rek gars yi doon wax naa naan kii di Pape Diop doon dimbale Ousmane Sonko si xaalis. daal di financé Pastef en tout cas kii di Pape Diop wéet na lu ñu mel ndaxte rek nee na bu ñu waxante dëgg rek loolu moom defu ko maanaam joxut Ousmane Sonko xaalis loolu lu ñu wax noonu mustaam moom Pape Diop nag teg si ne li tax mu demoon Touba rek laata mu jël dogal bi mooy ne da doon yëgal sëriñam rek si dogal bi muy jël ndaxte rek moom Pape Diop nee na bëgg koon rek mu daal di koy yëgee si mbedd mi moom Pape Diop nag nee na loolu tekkiwul ne kii di sëriñ Mountakha moo ko digal rek mu daal di dem ci Macky Sall Benno Bokk Yaakaar moom pab jom nag nee na bu yóbboo rek mu daal di leer ci nopp sénégalais yi xibaar yi nag ñu ko daal di jëlee rek ci l'observateur jaa ngi jëf gaay